général des ba léegi ndaxte moom sos na fi ab université ay journée dalal sëriñ Ousmane Mbàkke di coordonnateur Màggal Touba moom li mu xam ne ci biir l'observateur nee sëriñ Muntaxa li mu bëgg moo di ñu respecté diine l'islam nee mbënn mi am ca Touba tamit dinañ def seen kéem kàttan ba dindi fa li nga xamante ni moo di ndox ma nee na ONAS nag ma ca waar wa waaye li naam màggal Touba ma ngay am waaye am na ñoo xamante ne nag màggal gi jig na leen bokk na si Cheikh Bara Ndiaye ak Serigne Assane Mbacké Serigne Assane Mbacké mi nga xamante ni mi ngi woon ci na leen bàyyi nëgandiku suuf sa a moom ñëw ñun ci général mi nga xamante ni moo nekkoon ganu Serigne Mountakha Mbacké démb ca ndaje ma nag mi nga xam ni képp ku nga xamante ni bëgg ngaa indi gàllankoor ci màggal gi wala bëgg ngaa saboté màggal gi rek moom ngay jàkkaarloo vox populi ni police moom ay jumtukaay yi nga xamante ni ay anti émeute yëpp indi naka biir Touba général fàttali ni si biir vox populi am na ñaar fukk ak juróom escadron mobile yi nga xamante ni ñu ngi foofee te ngir aar ñi nga xamante ni ñooy ñëw di màggal si ca jamono jooj nag yor yor yéen kaay demoon seet ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko nee na ginnaaw fan ak ñeent mu nekkoon ci grève xiifal yor yor yéen kaay nee na Ousmane Sonko moom bàyyi na grève xiifal boobule les échos yéen kaay ni naam Ousmane Sonko bàyyi na grève xiifal bi waaye ba léegi wér-gi-yaramam mu nga wéyandi di sooxe ndaxte ay avocat am ñoom nag ña ngay artu nee na nguur gi na jël responsabilité am ndaxte Ousmane Sonko fi mu toll nii loolu ba lu ci xew rek ñoom du leen bett enquête yéen kaay ñëwaat ak ñun ci pouvoir ak société civile nee ñaari kuréel yooyu wóolonte wunu moo tax mu njaay siise ci biir l'enquête yéen kaay di xam ne ni société civile dafa war a yem place am ba noppi war a basé wu ci ay principe waaye warul am benn par parparloo ca jamono jooju nag le quotidien ñëwaat ak ñun ca candidat benn bokk yaakaar bi nga xamante ni ba léegi kenn xamu ko mi ngi xamal ni Macky Sall samedi bi di ñëw dina xamal askan wi kan moo war a nekk candidat benn bokk yaakaar ci yi ñu dëgmal journal bi dina xam fan yi di ñëw nag Macky Sall dina soppi jàppuwaat li nga xamante ni moo di gouvernement bi sport ak stade yéenekaay liste ñaar fukk ak juróomi gaynde yi nga xamante ni ñoo war a jongante ak Algérie génn na Mendy ak Boulaye Dia ñoom dellusiwaat bi Nampalys Mendy convoqué wuñ ko ki moo di Lamine Camara Aliou Cissé di wax ay dëggam ci biir stade yéenekaay na Algérie nag bête noire Sénégal la waaye nag championnat saoudien bi développé na loolu mi ngi xam ne itamit ni mënul sélectionné joueur bu nga xamante ni amoo club ñu jeexal ka ak sunu lamb moom mu dëkkaat ak ñun ci xëtamu njëkk ak nataalu Boy Niang nee na Boy Niang 2 moom mooy doomu